kooku alxuraan a ko prononcé sayfun
waaw loolu raax ci Salman sunu maam Salman réew mi ñu dëkk xabir da daan feeñu nit ñi am na ku ñu xabir moom la ñu délégué juyri ji day dunde day laa yóbbu fi am di dee ku ñuy wax Ilyasa moom la ñu délégué juyri ji moo ko yor day dunde di dee mukk ba ilaa yóbbu fi am mu jugguf ko la ñuy door a jël woon ku ñu wax xabir moom la ñu délégué juy ji juróom-ñaar moo ko yor moom it du dee ba ilaa yóbbu fi am waaye ñoom ñaar nag at mu ne dañuy daje Arafa kii wat sëpp moroomam kii wat moroomam ba déwén ñu dajawaat parce que démb du sàlli utal naa leen tur ci mbooloo mi dëkk ko ci kër Alaaji Dumaan Saaxo tudde leen sumratu saalihiina wa saalihaati saalih moo ëpp doole waliyu moo ëpp doole teqiyu moo ëpp doole nuriyu moo ëpp doole rasuulu waaw yonente di nekk saalih waliyu di nekk saalih karim di nekk saalih li Alaaji Maalik wax وفي ولايته بالوي أو كونه مالكا فبني يكون لك الله قل إنه سالم مالكا من هناك سالم دين تجنك سالم بين سالم تصدق سنة سالم تفترم xadir bi lay nekk li la téere dañu warante la yonent la ñu ni du yonent da doon buur ñu ni du buur da doon wëliyu alaaji maa ma boo warante bare te yow kaay ma digal la li ngay wax neel ku yiw la woon rek soo ne ku yiw la woon kenn du la fenn yonent dina yiw buur dina yiw soo dina yiw jëmi laa yëpp yii aw koy ne yiw ma la kenn rek waaye xul kon il ma sa alim rek ma dem de xabli yooleen ma feeñu mooy won koy mox di saat ñu bari sa fa nag ne maam li maamu laay moom la gis waaw Iliyaas léeg-léeg mu feeñu rëbb ci àll bi wax ak yow Salmaan nag seen yow bari na tooy mu fi Iliyaas daan feeñ ba mu daan nëbët ak a neexul yàlla wan na ko ak a neexul yàlla wan na ko bés mu sàmm ba midi mu toog ci tàtti garab rek góor gu rafet fekk ko fa su yéene yéex tàll ñu ko xam nga mu ne ko mu ne ko mu ne Iliyaas la boo defee mu ne la ba tey gis mu ne waaw dama am aju ju mu réew ju ma bëgg a laaj mu ne ko lan la mu ne ko diine ji ñu wax millatul islam millat islam laa bëggoon a xam te may ñëw fu ñuy feeñi mu ne ko ah ki ñu ko yónni kat war naa juddu fi mu toll nii sax passé na quarante ans ba takk na daraat ba waaye nag soo koy seet du ko yaayam du nditi du ko bàyyam du nditi dëkk ba mu juddoo day bare xeex te ñàkki garab foo ko fekk nag may ko dina nangu boo ko saraxee du nangu boo bëggee xam lu leer ci moom nag mbaggam tàmmañ ma tàmtam ca xaatamun nu boo wala Salmaan daal di dikk si def testament jaay yëfam tegu ci yoon ñu ko digg lu doon ba ñu siif ko jàpp ko jaam jaay ko ñu ko ko waxee dana ko Rasulullah nga nakk mu nga Dakar masalan ñu siif ko jaay ci ko Tamba mu ne si juróom-ñaari at jàmm ma di rek ko tax a jóg te ko jëndoon ci Tamba banque daanu commerce la mu jaay ko kees ci ko yor ci kees yor ko ay at àdduna soppeeku mu jaay ko caaro yi caaro yi gi ñu ko jënd nag ñu ngay dugg Dakar suba gune ci ko jënd am na petit frère bu mu bokkal ndey ak baay mu xëy dem Dakar dellu si seen maga ma nga ca tan ba di sàkk tàndar ma salmaan yëg bi lay ni ci réew tubaab bi tixit mu ne ko lu xew mu ne ko benn waaye fane ni yónum tëdd ñu ngi ko wër salmaan dégg ko ci ko garab afala taxsiruuna ana zalmaana izanat isruwaar waaw borom am seet naka la dégg turu moom rek garab tànn ma jiw doon yóotu rëcc ci loxoom garab gi mënatu ko téye mu ne daal daanu ca dafa ngi di lalal sangam fekk mu ngi wax rakk ni ko ñun lan mu teg kawar bi ne ko yaa sot looy laaj ci li ñu wax dëgg liggéey mu continué àggali xaar ba timis ñu am permis Dakar sorewul ak caaray ñu ñu fekk ne bi wax dal dana waxtu ak guddi ñu ngi doole lëf ci tàndar ñu ne ko kii de sarax la ñu bi ne gars yi lekk leen mu ne benn pro dem am deux jours dellu si waat ñu ko kii de hadiya la ñu bi lekk na lekk leen mu ne deux pro laaj ñu ne bàyyi bi dee na yaay ji dee na ñu def nag gis mbagg mi jibi la ñoom déy na bi ne ko yàlla ne waa jiw toog ci sa gannaaw toujours bu nit ñi toogee mu doon sa gannaaw xaatum ñu boobu bi la bëgg a gis boo toogatee yàlla malal sa baat ak mbubb mais bi di waxtaan ba mu yàgg mu yàlla mal baat bu ba rek waa ji ne bëkkam tegg te xarab maam yàlla ba siraaj maa ne wax na xarab maam yàlla ba na mu day waaw wax na na mu mel wax na kawal yi ko wér ñaata la ba alaaji Malik ne ne maa ngi lay xam ne ñun bàyyi ni kat fay nii nekk na ci diggante ñaar li pàllante mbagg ne bi mooy yax bu yaa bi ak yax bu yaa bi fi ñu yemoo ne dina na alaaji Malik ne ñu ngi ko def xaatamun na door waaw kay ñu ne diggante mbagg yi nga wax bu mu gën a féete ñu ne kataful isfa côté gauche ba la gën a féete dafa la xol féete ñun day nekkati fay diggante ñaari pàllankay mbag ji rasulillah ñu ngi ko def xaatamu nubuwa waaw waaw diggante ñaari mbagg ya ca la ñu def tampe xatmu nubuwa bi waxoon naa ne alaaj Malik bàyyi wul na bi dara dégg leen rek xam-xam bu soog yi muy bëgg a nekk min bay ni kat fay nabi xaatam na xaatimu ak xattaamu ak xittaamu bokkul xamee woo ko de ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ها؟ ها؟ وقاتم وقاتم واو يده وخاتمي كي diggante ñaari mbagg nag yi ci la ñu tante tante dernier yonent yi xaj naa nit ñu ne ko diggante woon mu ne boo ko seetee nag côté càmmoñ bi la gën a jege. ñu def wa xaatimi. tey diggante ñaari mbagg nag yi ci la ñu tàmpe tàmpe dernier yonent yi. xaj naa nit ñu ne ko diggante woon mu ne boo ko seetee nag côté càmmoñ bi la gën a jege. boo gisee gis nga booy wër kàddu gi gos nga koy jaar te gos dafa salte dafa waroon booy wër kàddu gi jaare ko droit mais gos nga koy jaare lu tax xol la yàlla soxla te xolam ci côté càmmoñ fii la ñuy def tànk bi alaaji Malik ni na mu day ñu ne yiiru ej la la ñenn ñi wax ñu ne laa baydul abama ñu ne laa jumb ñetti wax lañ ci wax tànk baa nga ne fang maa nga ne mu nga yaatoo ni bante boobu ñuy téye bu ñuy tant bargandi naax yi buñ koy tant buñ ko xëccee ba mu tàlli bant ba mu ñuy daaj yaatuwaay yi bant boobale téye tant bi moo di xee bay zéro ay jëlaa moo di bargen la tant yaatuwaay ba ne nañ ñu ne toll ñu ne déedéet mu ngi toll ñu doy amaama ne ni banjooli ñu ne déedéet jummul na toll xam nga ñu jummul juróomi daaraam yoo bank mu dañu ci tënk ñu ko tuddee kon kay waaw kay mooy jumul bokkub daaju bergen benn déedéet nañu benn julli déedéet mu ngi tollit kurpeñ alaaji maa ne nag nga ak lu si mën a am moo xam ne bële la day wala bële wóor na ne day aw la wóor na ko saa yi te kawar yi dandante ay kawar ko wër nii wër yi rafet a rafet nag di lu mu gungalee xam nga ci moo la fekk yàlla naa si bi maa ñee ku ko gis Salmaan Jibril jox na bi siñ ne ko kii dëkkee toog ci sa gannaaw loolu la ba nga gis moo ko defee pour mu dugg ci diine ji ne bi waxtaan boobu yàgg mu ne nii mu ngi kan baa mu ni ci képp أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله ñun ma suufu ca dama ko capital laa yoroon jaay ko ngir bëgg a laaj jaamloo nañ ma ci ñetti kii ba yàlla yemale ma tey dama dugal nga dimbale ma ma jot sama bopp doon gor ndax njaam ñeent la dafa am bu ñuy wax xim naan waaw jaam la xim na ci xeeti jaam la muxtajal muntaqal ajali ci xeeti jaam la ummu yonent bi ci xeeti jaam la mu kawe tëb ci xeeti jaam la waaw xim nan mooy jaam bu ne ci kër yow ñu ko moom dafa la benn foog bi nga war a fayee ku nga war a fay jaam moom su la doon xeexu la kenn daxaañ ko ñu war a fayu ci moom muy jaam bu ñuy kukk lañ ko tudde kooku bu la yoon dalee ci sa kaw ne foog nga goreel jaam kooku ngay goreel mais doo goreel jaam boo xam ne bi istiraak la da nga ko société jënd ko waaye jaam boo xam ne umu wala fem mooy jaam bu jigéen boo tëddal ba mu ëmb doom ju jur dootoo ko sañ a jaay dootoo ko sañ a goreel te booy dee kenn du ko doon ne day doon gor mu tuddee umu wala bi waaw umu mu taxal ajal nag mooy ku la ne dama la bëggoon a jox temps pour gore alxuraan ne foog ngeen tuddee som tudda dat waaw nga ne ko cent mille francs dans trois mois ñu liggéey nag di la jox six cent mille yu ñettee yow mu di gox soo xamee ne yegg la nag cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent dat ba jot te matul day dellu di jaam te la nga jotal lekk ye- lew la demal la sa sang li mu bëgg ngeen jotoo seulement dem na ko doon bëgg a jox sama bopp mu rekk nu ko yaa dooj yëpp na ñeent fukki góoroo wurus ak ñeent fukki tànk taatu tàndarma yu ñu jëmbat ci at mi mu ñor ci at mi tàndarma bi am ñeen tàndarma gu yéex tànk ñeent fukki at lay am bu gaawee tànk juróom-ñaari at doora nañ mu nga ko dañuy jëmbatal ñeent fukki tàndarma ñu ñeen ñi ci benn bés jox na ñeen fukk góoroo wurus da ko la ñaawal nag ولا تكرهوا فتياتكم إن أردنا تعزنا لترتقوا عرض حياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد يكرهن غفور رحيم الذين يتقون منكم الكتاب من قول لهم وآتهم من مال الله الله صبيبا yonente bi ne seen mbokk ngi kat am na soxla dafa bëgg a jot boppam lu waaye am na ko indi waaye téere yi dajeel d' accord nañu ne la ñu dajale toll ñu ne ni ganaar ne dina ko yóbbu ko mu ne ko ñëw naa indi indi balance bi waa ji xool li muy dama ko xaaral naa fontu mu ne ko indi balance rek mu indi balance da xapp ci keneen ba di teg muy daanu di xapp ci di teg muy daanu ba quarante gooro yi nag ñuy laaj nen bi ndax dara jóg na ci bul way de waaye maa la maa la koy woyal ووفى بقدر بيدة بين الوفاء بين سلمان إن عان الوفاء لا إله إلا الله مش أجافف من وفى فين بمدس رجل نبي فين بمدس لا بين سلمان ورب سلمان بكن إن عان بمدتي شنو مكفي بقدر بيدة يتولى من الجناح ñu ne ko sa wurus bi de xam foo ko jëlee waaye du wurus ne tàndarma yooyu def na bi na daggal leen na ñeent fukki tàndarma di gas di ko fi teg bu kenn jëmbat caabi yi dagg ñi di gas di teg na bi topp ci jëmbat bisimilaay teg tànkam bisimilaay teg tànkam bisimilaay teg tànkam balaa àgg ci garab gii gii commencé ñu jal jal jal jal jal bi ba ñuy àggal quarante yi bu njëkk bi ñu ngi ciy lekk كم بلون كم بسلمان
مماثلك تبكي لحزني والندم
أدرك ما ليت القدر كنت ليت القدر غير من في الشر تنزل ملائكة وعلاء فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام نهي في واي جدي في نهي أدب بقى خلا ينسى تقول بتاخ نك بتاخ مطلوب في الدخشين li tax mu toll foofu joxe sim bi dafa mel dafa ne nii benn pro jàkk benn desil ما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر trois fois la ko yàlla tudd noppi tudd ko quatre tudd ko cinq tudd ko six daf lay naan sa naan fi leylatul qadri mais wa ma adraka ma leylatul qadri ne leylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu malaikatu ba tàll jeex trois fois yooyu mu ko tudd nag leylatul qadri bu nekk boo ko wàññee laam yaa laam tat saxeel liif laam xaas del raa neuf moomu trois fois neuf lu mu doon trois fois neuf vingt-sept nan dem génn réew mi nan génn réew mi nan génn fu ñu tooñe suuf soo musula mooy yàlla boo fa taxawee loo ñaan yàlla may la ko xaadiru bani israël bi kañ ne dee ko nekk xadis la bu wér nit yàlla Muhammad moo nekk li nit ko rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent te bi guddi mën la nelaw ngir xalaat nit ñi mu rey laaj ñu war ko ku mën a jàng ñu dem fa ne ko dama rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent bëggoon a tuub ndax su ma tuubee yàlla na ko mu ne ko kenn nit rek ku ko rey safara nga jëm ñu ne ko kon dama foofu moo tëdd cent rey waa ji rey sëriñ bi sa chiffre ba mat cent ñu dem au moins xel mi nekkaat ci yàlla mu tiitaat di laajaat bañ wax ko beneen alim mu seeti ko na ko yaay diw mu ne waaw mu ne ko ma de dama def bàkkaar bu rëy rey naa juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent déggu la sëriñ diw mu ne ah kañ mu ne déggu la ne rey nañ ko mu ne ah kañ mu ne ko maa ka rey ndax bi ma amee quatre vingt dix neuf dama tiit pour bëgg a tuub dem mu ne ma yow jaanu ma nga jëm ma ne ko kon ma faf la jekkali saa yi léegi nag sama tiit ma ñëwaat na ma laajaat ñu ne yaa fi raw may laaj ndax boo tuubee yàlla nangu ko mu ne ko waaw waaw mais mën naa am mën naa am sëriñ bi dafa ragal jaasi mais mën naa nit dafa dàq jàng kële attention mën naa am jaasi ji la ragal moo tax mu ne ko boo tuubee yàlla nangu mais mën naa am nit dafa dàq jàng ka ka noon boo tuubee yàlla du ko nangu fekk looloo ci am na ko xam nga dangay def dangay génn réew mi nga ne dem ci réew mi musulom mooy yàlla borom xam-xam bi ñu tukki fu ñu amul soxla indi ba ngoon ñaan ñi bis xam ne fii de ñu suñu ko def gën njaaxum te foo musul def njaaxum nga fa ñaan yàlla mu may la ko boo gisee ku ne naan sama bi ma fàtte ci ñaan lammiñ boo musul a moyee yàlla ku la ci ñaanal nga nangu te mun la muus ba mooy yàlla te lammi jàmbur xanaa lammi jàmbur laa bokk mu ci yàlla moo tax ku ne naan sama bi ma fàtte parce que bu la ci ñaan rek mu nangu amul benn rek mu ne ko da ngay génne réew ñuy dem foo musul a mooy yàlla nga tuub boobu dafa yàlla nangu la waa ji dafa rafetoon bari xaalis tabi kooku càncaa yomb na ko da nga wax ne ñu bay wërsëg nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla parce que càncaa yomb na leen bunt bu ñu fëgg ñu dindin borom koppar yu bari ñu takk seen digg ñaaw tef yomb na leen de kon kon bunt te ba nu am ko yéen ne yaay diw la de mën a ubbi ñu bëri xaalis nañ góorgóorlu càncaay yomb na leen duñ leen gantul dara ñi amul tus nag nañ moytu bàkkaar parce que bëree bu ñu tiyaabo ku amul rek doo fa ah papa ku amul reer doo saraxe ma ne ñu xam nga xam nga ñëpp war a góorgóorlu ñi amul dara ñu góorgóorlu parce que bare gu ñu yiw ñu bari la it nañ góorgóorlu parce que bari nañu caay-caay dana réew moomu solo mooy yàlla nga tuub fa ma ne waaje dafa rafetoon bari xaalis tabe ñu ngi ko ko waxee Dakar mu ne ko léegi suba ma dem xanaa ma dem Rufisque ne ah non tamit baaxul mas naa faa dem xanaa mu pousse ba njaareel ne ah foofu baaxul keroog si course ba kii kii ah xam naa dem Kaolack nii ba ma fa demee ca Lamba ja nangam nangam naa dem Tamba dafa bëri xaalis tarata lii mu lii yëpp point bu ma mën a taxaw rek xam ne fii wóor na ko ne dafa fa lu naqar yàlla amul mu nga Dakar fi xelam dem daal moo di ta moo di Bamako mu xëy def testament takk bagage am jëm Bamako ñëw ba caaroy dee dekat ay mu njoxul بيتي مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع قدر ولا لاحق دمي كما بي الله ويتي لا يستوي غائب منكم المجاهدين في سبيل الله دفعنا الى المستضعفين من الرجال والبلدان الذين لا يجدون الا ولا يحسنون سبيلا maa ngi lay yëkkati sama baat man yàlla di yëg leneen ku tóob toog màkk ca tey du ñu rek ku tóob dem mi dina fekk ne bi ñu fekk ne day leen ëpp tey ah xanaa jigéen ñi amuñu moyen ak ku lafañ ku amul moyen kooku day bu fi toogee mën naa ko jox mandat bu toll ni ñële waaye ku fi tuub di góor mën a am fas mën a am jaasi mën a fekk ne di bi la ko toog màkk gii sa tey du yem ak ñel góor gi ñu ko dumee lu dégg ko tiit lu ñu jëndam ma doon di yaa alxuraan kat wàcc na dégg naa benn aaya yàlla ne du ñu yem ak waa Medina tey ma génn Màkka ma ne ko topp bokku la ci ilal mustaxifina la ñu wax ñu néew doole la ñu wax ak màgget ñi ne bokkuñu ci mu ne ko doo màgget naa waaye sama coffre-fort bii trois millions nga ci te lew na ma tey ma fay ko ma yenu xëy ñu añu ko ñu génn Màkka ba tolloog pan in sept kilomètres yu manqué la mu nga jëm Medina sukuraat dab ko fa mu dee ba sukuraat su ñëwee dafa dijub ne allahuma hada yadduka wa hada yaddu rasul yàlla dee dat na ma ci yow laa jëm si woon sa loxo ngi loxol na dee ngi maa ngay jaayanteeg yéen dee fa maa fi xëy di ko reetaan ne kii génn na këram dee ci ñaay bi moom dee na dee na dee na rek ci dara sun borom ne ci alquran ne mun yaxrus ku décidé ne bëggul an baytihi ci këram ak néegam mais juróom décidé gàddaay ilallahi jëm fenn di nekk wa ca yàlla nekk wa rasul ak yonent bi su ma yëgëri koo dab ko almawtu dee bi mu laan ta àgg faqat waqaata bina ajro ab yolam ala allah waa ji dee malaaka yi àjjana yi ñëw di ko jël si malaaka yi safara indi keen ñi di ko jël si ñu dëjëf yow mu ngi ci téere téeméeri nit ñu soo defal yàlla dara dee yéen ñi da ngeen koy yóbbaal yéen malaaka yi safara yi àjjana yi dañoo yëpp ñu ngi kii xam ne am na borom yëpp ne tooñ na ko bëgg na boo ci kuréel bi dem lu ngeen fi ut ñu soo yàlla yóbbu jur ne ko da ngay nattal na suuf fa mu jóge ak fa mu jëm ak fi mu dee fa mu dee fa mu jóge bu gënee gàtt ñu jugé ko ci jaanama bu fa la gënee gàtt ñu jugé ko ci àjjana waa jaa ngi jóge kat Dakar mu ngi jëm ba nga ko mu ngi dee caaro ji waaye bi malaaka yi ñëwee di def constant nii oto yi defante gendarme yi ñëw di xëcc di di xëcc di nag te yàlla dafa taxañ suuf taxañ ba ma ko leen ko ñuux ko ci tàppi Dakar na dëree Dakar ñu dem ba na ko Marseille ñun nag fii gënoon sut nangami kilomètre ñu ñu utilisé ko ñu dem àjjana ci yërmande suñu borom. ba ñuy jóg fii sécheresse bi nañu jóg nañu génn dëkk bi nañu seeti rasulillah comité bu ne cotisé seen kenn coordination bu ne cotisé seen kenn denc bu ne cotisé seen kenn daayira bu ne cotisé seen kenn fédération bu ne cotisé seen kenn. ci ay kayit yu ñu bind la di leeralal umra bi ñu bëgg a def dama bëgg a def laylatul qadr ak rasulillah julli korite ca kaaba ga fab suñuy muuru koor jox ko miskini màkk yi ñu mos ci ren ñu ci des ñu sànni ko pitax ya tàllal suñu loxo yàlla ñaan ñu bisi condition yi ñuy demee yëpp ngi fi barki démb laa jóge màkk sama papa wax na ko dem naa ci ne jële ko Sénégal ñuy bëgg a ñëw ñu ngi leen di nuyu di leen xaar di leen tayal kenn du ñaan ak koo mën a yaakaar ak lu mu réy réy te tuddee ko rasulullah kenn nag am déet l'islam bi sax boo dee yéefar dafa cee dugg ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lank na doo wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul doo doon jullit dañ lay baare am déet kéwél gu yaa wërsëg wu sotteeku mujj bu rafet gàmm ji continuer nan dem ci nan dem ci nan dem ci nan dem ci nan dem ci soppe yàlla bi ki ñëw yàlla kawas yi weex tàll dàll yi weex tàll nga xuus ak moom ci godorom 63 kilomètres génn weex tàll nga bu rek mën loolu ñun ñëpp ku nekk comprendre wax tal nga fi indiwoon bët yi defagul bàkkaar la yàlla joxoon nga indiwaale tànk yi doxagul bàkkaar nga fi indi loxo yi doxagul bàkkaar nga fi indi ay raw yi doxagul bàkkaar nga fi indiwaale boobu muy comprendre wax tal mais dunda laa sa benn si wane nga complète bi loxo yi def nañ lu naqari yàlla bët yi xool na ko tànk yi dox na ko tey sa xalaat na ko awra yi jaar ca rasool fi dund juróom benn fukki at ak ñett xoolal lu naqari yàlla waxu ko déggu ko doxu ko defu ko naw ko moom rek gën a complète ni mu fi duggeewoon tiig tax yaa badru fii hëleyka tiig tax yaa badru fii hëleyka dañ ko doggalee tëj ko ci néeg bi ne faatu na te xaritam si bi ñu wax Sidi Abi Bakar tàggoog moom ci yoor yoor na bi tane ba julli si na keroog te am na quatorze jours yu ñu ko gisul quatorze jours ba mu war a dem jar sàq ba ñu salaatoo def na réew réew bi ëñ dafa rafetoon nag buy bëgg a ñëw leer gay signalé ca kanam nga leer ga faraat ci mimbar bi fekk Ababacar ngi position pour kabar naka la seen leer gi rek ak kat gi mu xam ne ngel màkka ñëw mu reculé mu ne ko màkka naka continuer continuer mu ngi takk bopp bi musoon musoon am na nga góor julli yooyu yor booba Ababacar sëy ni que sama siita ayatee ak di tu bintu xarit yi duñ ma may maa ngi koy ciitale fala ayatee ndax mën na maa dem mu ne ko mën ngaa dem mu génn rek malaaka ñëw tu utu ko bi malaaka ñëw ñu dogal ñu dog bi malaaka ñëw bi malaaka ñëw dogali nañ ko doom ji doom ji Ababacar